nous sommes de frères et nous continuerons à être des frères sa soxna dafay nekk catholique sa jëkkër day nekk catholique ngeen ànd nekk benn loolu kenn mënu ko sappe ku koy jéem da nax sa bopp sa kër ngay sappe mais pas euh, la société mhm. extrêmement important fa laa yem mhm. nga gisee Eh, Coolu du ñàkk fan yi la passé wax nga ci mais tournée bi mu jël xaw na jaaxal Sénégalais yu bari parce que gis nañ ba Barthélémy Dias d'ailleurs eh, mu ciy wax ba jàpp ne président Ousmane Sonko établissement yi nga xamante ni moom catholique yi sax la wax ñoom lay ñoom lay waxal en fait wax ji jaruñu koy raay moom noonu la ko gisee. bon maa ngi nuyu. Euh, mhm, Dabaax Dabaax Malick. Mhm. Euh, une personne que je suis beaucoup à travers. Mhm. ses vidéos à travers les débats yàlla ko yàlla defal barke. maa ngi gis muy xool sama ay waay lañ de. Mm-hmm. <laughs> ñoo xoolal <laughs> bu ñu paree ñooy bokk fi ñuy reere <laughs> loolu dama la koy teel a leeral so moo tax man nii def <laughs> anta dañoo dem ba buddante ay micro mais ñoom ñaar ñooy pare ànd dem <laughs> ci nekk nag sa kii la rek xam nga la vérité non xam bokk ak ñoom débat mm. ci beneen télé mais mm. débat bi mm. jarul tur ñu dagg émission mais bu ñu paree dañoo dem ci benn restaurant ñu fayee ba ma ba suur ñoom ñaar ñoo ànd defandoo lépp di woon dañuy wante téléphone normal nag. Mm-hmm. seulement nag par rapport au débat nag. Mm-hmm. nii la tamit. Mm-hmm. parce que contradiction la mais. xam naa ne ay nit ñu respectable lañ tamit quoi. tout à fait. parce que man xam naa ne moom mbirum xoj du ku nekk lay toogal débat. kii tamit pareil yow it pareil macha allah. gis nga par rapport ak ce qui se passe. Barthélémy Dias moo yéex a. moo mujjee sax wax. liir naa teg sam mais dafa am benn fondamental boo xam ne moom laay njëkkee tàmbalee. Euh, Sénégal jullit ak catholique ay mag ak rax lañ man sama jarbaat yu bëri ay chrétien lañ. Mm-hmm. j'ai des neveux chrétiens. Mm-hmm. keneen am na ko keneen am na ay mbokk wala ay sër wala ay cousin cousine. dañ ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent ay musulmans lañ. Mm-hmm. quatre pour cent chrétiens un pour cent d'autres religions. suñ ko tegoon ci cadre majorité Sénégal république islamique lay doon. parce que dañ laa majorité. Mhm. emporte mais ñu dem ba toll foo xam ne constitution bi ñuy doxee Sénégal mooy un pays laïque. Mhm. cette laïcité wuuteeg dëkk yu bari. Mhm. niñ ko dundee ñoom. gis nañu fi boo demee en Centrafrique la guerre entre des musulmans et des chrétiens et ça se voit partout. mais fii bu feetu chrétien amee mais musulmans yi dañuy mel ne ñoom ñoo xewle. su chrétiens yi xewle tamit. musulman bu ñu xewle chrétien yi mel ni ñoo xewle. Mm. c' est la même chose. c' pour dire que nañuy dépassionner le débat te bañ koy yóbbu fu mu yeggul su mu ko dugal ci cadre fois ak cadre diine. Mm-hmm. et je crois que cette question a été déjà réglée avec le président Macky Sall. Mm-hmm. la problème mu voile bi tàmbalee woon. ma indi fi tolee ñëpp jóg. Mm-hmm. naxarlu ba église bi am ñu si wax tamit. pour jàmm ñëwaat. mais je crois que problématique boobu jeex na. ku si nekk yaa ngi jàngi. ci école bi nga xam ne moom ngay jàngee. Mhm. man benn position laa ciy jëlaa ah balaa may gën a développé. Mhm. tey position bi Ousmane ko jël noo ko mooy dañoo war a yemale élèves yëpp ci école yëpp ci ñu sol voile ak ñàkk sol voile dama ciy ànd man dama ciy ànd mais dafa am ay paramètres yoo xam ne aussi il faut ñu koy bàyyi xel constitution wu Sénégal moo ëmb lépp. je crois que conseil au Sénégal bind na charte yi nga xam ne école catholique nii lay doxee ci réew mi wala école nii lay doxee képp ku am sa doom ci nii ak nii bu fekkente ne règlement intérieur bu école ba bu école catholique bi. Mhm. dafa war ne permettre benn jullit muy jàng si ci école bi di muuru su wala benn élève buy jàng si di muuru est-ce que méngoon na ak constitution au Sénégal la mu wax su fekkee méngoo wut. Mhm. école boobu dafa wàcc yoon. on le prend le prend dans moderne mais pas de la religion. Mm-hmm. bu fekkente ne nag méngoon na ak li constitution bi wax ñoom ñu ñoo def loolu. Mm-hmm. ñoom dañoo def lu leen neex ñaare ba aussi ministre de l' éducation nationale balaa muy délivrer autorisation d' ouvrir une école. Mm-hmm. je crois que am na ay charte yu muy joxe nekkat yow boo ubbee sa école ngay catholique wala ngay école musulman charte yii lañu la tegal est ce que charte yi ñu ngi fa moo tax ne Sénégal des fois jarul polémique. nous avons des textes c'est des règles qui sont tellement claires et nettes. mais est-ce que kon waxu Ousmane Sonko finalement jaroon na ko. non xam nga li nga posé question c'était des élèves wala. non xaaral ma ñëw. non ci ban euh, contexte la ko waxee. ba muy dem grand théâtre grand théâtre di honorer concours général bi. concours général bi. Mhm. ci la félicité xale yëpp. Mhm. na leen danay fexe ba dootuñu nangooti. inégalité di am. Mhm. ci élèves yi nga xam ne dañuy muuru ak ñi muuru wul. si école Sénégal yëpp. ñëppay yem bokk amandoo chance. loolu ñu nangul kii lii bañal kii lii ndax ñëpp war a yem a chance égale. loolu la loolu la loolu la wax mu tekki ne d'ailleurs sax fii nii concours bi élèves yi toog ñi muuru sax ñoo ëpp. Mhm. ñi am ndam ñoo ëpp sax te muuru ñoo fi ëpp. cadre boobu la wax. mais on le prend dans le cadre général. waaw mais li xam li xamu coow li may euh, abbé bi bi mu ko tontoo. waaw xaaral ñenn ñi daf da ko wax ñu ko. carrément wax ji. falaa jëm wax langage bi mun nga ko. modéré su dee da wax wàllu diine. dama ne cadre diine amul foofu on a parlé de l'école sénégalaise. de l'enseignement sénégalais. peut-être qui a touché euh, les écoles catholiques. ñu remonté histoire bi amoon ci Jeanne man histoire bi amoon Jeanne dama yàgg toog ci plateau ne ànduma ci. dama ne élève bu bu mu neex nga muuru ci dem jàngi. comme élève bi nga ne day sol jupam bu gàtt. ñu koy accepté ci classe ba. Mhm. su fekkente ne ñoom mënuñu nangu loolu. état du Sénégal da récupérer autorisation bi tax Jeanne d'Arc di enseigner parce que. Mhm. suñu dëkk lañ nekk dañoo fekk suñu territoire. Mhm. fekk ñu suñu titre. bu dee nag man nekk ci ambassade. wala consul foofu c'est un pays dans un pays. un consulat wala un ambassade dans un pays étranger mhm. xam nañu dëkk la mais mënoo ñëw na ci territoire du Sénégal uh-huh. di imposer mhm. que nii laa koy doxale mhm. exemple les Jeux olympiques Paris mais dañu wax ne nanguwuñu jigéen ju mbuuru di défilé et pourtant à la même place on a accepté benn góor jigéen bu sol jupe bu monté ay wet di <laughs> défilé parce que seen culture moo ko nangul waaw léegi ñoom bu ñu jëlee seen culture ñoom valoriser ko ñoom ba nangu ko ba daaneel rek ñun ñu bugg ñoo xëy suñu culture ñun muy muuru dama jàpp ne du yoon mais nag aussi mais uh-huh. savoir aussi une chose mm-hmm. faire la part des choses parce que école islamique aussi bu fekkee ab chrétien ñu ne fa takk croix est-ce que jullit bi dinañ ko ko bàyyi muy jàng si takk croix et pourtant am na mm-hmm. boo demee ci am na école yoo xam ne soo demee da ngay fekk c'est pour dire que on n'a pas cet esprit léegi par rapport a abbé mm-hmm. Abbé ah il a parlé du côté de la religion joxaale Ousmane Sonko ay leçons de morale mais Sonko est-ce que religion la aussi. non dama ne xam nga li mu wax leer na. Hmm. dama ne Ousmane Sonko waxul ci cadre religion. Hmm. Abbé ñëw tontu na ko ci cadre école ba pare. laalaal si wàllu hmm. religion. foofu du ma ci mën a juger parce que la fois des gens on ne peut pas les juger mais li may wax ak mooy. un retenu il faut un retenu. Barthélémy Dias dans son texte. benn paragraphe entre parenthèses la def. ne Ousmane sax yi tuddaale. école catholique ñi nga xam ne am na ñu ndam ñoom it. Mhm. mu nekkaale benn égalité. gis nga moom it fa mu gisee. Mhm. ba par tontuwaat. d' accord sur le plan. d' accord mais man. fi may waxee si ñëwaat mais il faut qu' on soit. jaraaf nañ dellu soit suñu sago. parce que diine. dafa mmh. sensible te bu ñu duggoo Sénégal ci guuta te. waaw dialogue islamo-chrétien. Mmh. gëwuma ko Sénégal. Mmh. xam nga lu tax ñun soxlawuñ ko parce que dañ koy dund. ñun on vit ça donc on n'a pas besoin. qu'on nous crée l'environnement. dinañ ci dinañ ci taxawaat tuuti rek du ñàkk mais jaraaf.